mbokku presse ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant seen teewaay tey tey nag daan am benn ndaje ñun ak ñi nga xam ne ñooy partenaire au développement ñi nga xam ne ñooy liggéey ci lépp lu jël ci euh, environnement des affaires ak compétitivité te USAID ñu jiite ko ñoom ñoo nag organiser ndaje tey bi invité yenn partenaires yi invité tam secteur privé ñu ne nag ngi waxtaan tey li jëm ci partenariat bi privé xam ngeen weer yi passé wala at yi passé ñu ngi doon liggéey ci réforme cadre institutionnel partenariat public privé ndaxte suñu cadre PPP dafa nekkoon loo xam ne xawoon na jafe tuuti xawoon na mën naa wax sax jaxasoo tuuti xaw a euh, jafe pour investisseur mun a gaaw a investir ci nga xam ne mooy partenariat public privé son excellence président Macky Sall nag sant ñu ñu defar réforme bu rëy macha allah simplifier cadre bi ndax mu gën a yomb ndax investisseur bu ne nga nekk fii Sénégal wala ci bitim réew ah, mbir mi gën a yomb ndax nga mun a comprendre suñu cadre légal système bi ñuy utiliser pour mun a am partenariat diggante secteur privé ak état. surtout li jëm ci ay infrastructure wala ci yeneen fànn euh, tey nag waxtaan bi nag lu jëm ci loolu la parce que réforme bi pare na loi bi jël ngeen ne voté woon nañ ko président jël nga décret gi li des nag léegi mooy ñu jublu ci liggéey bi ndax ñu mën a attirer ay investisseurs pour que partenariat public privé gën a nekk jumtukaay boo xam ne dinañ ko utiliser ndax financer développement bu Sénégal surtout ci plan de relance bi ñu am nii mooy le PAP 2A loolu mooy ndaje tey bi parce que da bëgg ñëpp xam que ni loi bi euh, décret yi lépp pare na léegi nag lu des mooy communiquer waxtaan ak ñëpp wax investisseurs yi ñu def tout ba ñëpp comprendre cadre boobu ndax ñu ngi ko utiliser loolu daal moo nekkoon ndaje tey bi maa leen gërëm di leen merci.